waa Mauritanie ñëw nañ waa Mali ñëw nañu sous région bi yëpp ñëw nañu waaye Afrique kenn desul ñu sant yàlla ci loolu di sant nag ah, ñi nga xam ne tey ñoo jël initiative bi tuddee ñu bés bi boole ko ak sama doom Fat Dieng madame Mbuub mu ànd ak rakki président Serigne Mbuub yëpp ñu ñëw fekk la si ñu ñu ngi gërëm yàlla di leen gërëm ci taxawaay bi ñu ngi ñaan lii yal nañ ko yàgg a taxawee ci barke rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam gërëm nañ waa Sénégal gëm nañ waa Gambie gërëm nañ mbooloo réseau des femmes entrepreneurs et leaders sénégalo gambiennes bàyyiwuñu kenn ñu ngi gërëm ñépp nag waa Nioro waa Ndofane waa waa ngin ngi néew waa Sénégal bàyyiwuñu kenn daal ku lim dina am koo fàtte salaamaaleykum wa rahmatullah